yëpp yëpp asalaamaaleykum mbokku internet Medina TV HD euh, saa su ne mbégte la ñu am di ànd ak yenn seen émission parcours. te nag ñoo ngi fii sur rue 19 angle 6 am mbégte di fi dal un grand champion de lutte nekk écurie muy Forza 2. Euh, ñu ñëw nag fas ne def ak moom benn entretien comme ni ko ni ma ni ma leen ko waxee rek émission yi parcours la nañ dugg ak moom si jaar jaar beek xam nga euh, Forza 2 fan la commencé bëree xam nga ak ndax da ko doon nag yooyu. Ah, ñu bàyyi leen ñu bàyyi moom mu nuyoo ak mbokk Medina yi nga xam ne ñoo koy seetaan si Medina TV HD Forza 2 ñu ngi lay nuyu la bàyyi nga nuyu ak waa mbokku Medina yëpp. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen fay bu baax a baax di leen sant di leen gërëm si déplacement bi ngeen def ñoo fi donte Medina la mais dañuy sant yàlla bu baax di sant suñu ñaari waajur di sant waa Medina yëpp ak képp kuy sonn ngir Forza 2 sant waa Medina TV nag bu baax a baax a baax loolu suñu yëf la. kon kontaan nga ci waa Médina TV. waaw non interview nag buñ mës a am nag bu tey bi bu newul moo ñu si gënal bokk na si yi ñu si gënal ñu si gënal neex parce que affaire booy Médina la affaire Médina la te ñu lépp lu nekk Médina rek boobu ba léegi temps ngi daw caméra yi am na ñuy woo pour interview mais xam rek sama gars yi moom dama xamul nu ma leen di def moo tax. waaw Seynou daanu c'est le ki kii gañ. ñu commencé question yi comme ni ma la ko waxee rek émission yi parcours la tudd maanaam jaar-jaar. Ah, tey mun nañu xam euh, forsa 2 fan la juddoo ak fan la euh, yaroo. waa forsa 2 mi ngi juddoo Gueule Tapée hôpital Abass Ndao màggee Médina Foye Médina entre Médina fas Gueule Tapée Colobane grande Dakar ñaari tali. Mhm. Ah, forsa mun nañu xam ndax forsa jàng na parce que daa d'habitude dañuy gis ay mbër yu bëri ñu si bëri euh, defuñu école ndax yow jàng nga am nga yu jàng. waaw jàng nañ nag mais solo wuñ classe bi ñëpp bàyyee rek muy classe su nante rek. mooy ah li gars yi di wax ñi naan classe mu bëri ñi naan classe simbakat yeeg affaire yooyu noonu CM2 nag leen bàyyi waaw mais on on on exprime bien en français ah ah on a fait les bons de l'école Soumbédioune de oui on ah, on sait lire on sait écrire on parle un peu français daal un français de Boy Médina quoi. Forza euh, pourquoi tu as arrêté les études. non xam affaire de Boy Médina rek oui xam nga boo nee Boy xaw a doo concentré wu si jàng ji dañuy nekk si géej géej armeer yeeg foo yooyu noonu moo tax. Mhm. kon daal euh, yooyu daal moo tax nga bàyyi jàng dem géej uti ay jën wala dugg ci àll beeg yooyu noonu. waaw xam nga booy maintenant moom boo fi nekkee da ngay am ay copains yoo xam te ne dañuy trébal ñii dañuy jàng ñii duñuy jàng bon mooy loolu daal mais alhamdulilah nag am nañ suñu métier nag buñ bàyyi jàng tamit tooguñu tamit ñi am nañ suñu métier mais alhamdulilah daal. lu ñu bëgg a bind en français ñu ngi koy bind lu ñu bindal ñu liiral ñu liiral ko suñu bopp lu ñu waaye wax si français tamit ñu tontu ko sax. ah kon boo ko yéen a ko déggandoo Forza 2 comme ni ma koy wax rek il s'exprime en français léegi ñu dugg nag ci wàllu carrière bi ah, ba bàyyee jàng rek da nga commencé di bëri wala automatiquement da dem euh, defi beneen métier. non suñu profession menuisier la menuisier la ñu jàng comme li mbëri di wax souvent naan euh, man xaalisu làmb leen ma ngéntee man xaalisu menuisier leen ma ngéntee suñu pap moo doon menuisier moo ñu jàngal bon bañ bàyyee jàng daal dem nañ atelier jàng fa alhamdulilah jàng suñu métier. ñu ngi si ba léegi nag ñu ngi liggéey démb rek dimanche moo tax liggéey mais tey rek dañoo liggéey. Ah, kon euh, lan moo la ba nga dugg ci làmb. bon làmb nag li ñu poussé ñu dugg si. Euh, kër gi ñu gël Gueule suñu papp tafaagee fa la daan jëlee joo bi muy kër suñu maam Madiagne Sow Gueule Tapée moo tax tey bu ñu tegoon archive yi. ba fa per Tafa daan jël si joow temps booy di di ñu si gis mais tamit euh, dañoo judd fekk suñu pap di supporter écurie Fass suñu yaay suñuy grand frère ak suñuy xarit ñëpp moo ñu si poussé ak ay nekkoon fi tamit a ak na grand yi comme ay la Diouf waa ñooñu bokk nañ Balla Diouf ay Forza 1 bokk nañ si liñ gën a dugal si làmb nag. waaw ah, léegi turu Forza 2 mën nañu xam fan la jóge ak kan la ko tuddee. Euh, turu Forza 2 si Balla Diouf la jóge waaw Balla Diouf moo ñu ko tuddee waaw. dafa la gis ngay nekk xale mën a bëre wala technique bi nekk fi macha allah wala. non Balla dafa yàgg doon sama gain waaw moom avant avant may dem Igri Fass sax moom bokk na si ñi ma yóbbu Igri Fass Balla juuf moom avant ñoo dem sax Igri Fass doon ko doon supporter lamb ju mu am dañ doon dem stade di ko supporter. waaw bokk na si de waaw am na si doole trop si ni ñu poussé ba ñu doon doon mbër Balla juuf ah mën nañu xam aussi Forza ah, ban année nga njëkk takk ngemb ne yaa ngi bëre ak fan la woon ban occasion la woon. arène wala mbapat nii wala. 2013 hmm, waaw. Euh, terrain Colobane bi. Hmm, ngi ko bëri woon benn waa ju ñuy wax faire 12. mais du woon tournant quoi mbapat nome la woon. Hmm. Ah, waaw maa moom waaw. nu ma demoon làmb jooju mën nga si ñëwaat tuuti ak euh, ndax yaa gagné si non wax dëgg yàlla boobu nag moo ñu daanu mais après bëriwaat nañ fii si biir koñ bi ñu daan ko waaw bëriwaat nañ fi grand combat fële su ma juumalee ba fay bëree defe naa ñu ngi bëri woon troisième combat xaw ma deuxième combat mais bëriwaat nañ fii si koñ bi wàllu leer ñoo ko tëggoon fii si 19 angle 2 bis bi ñu bëri ñu am seen ndam si kawam. mun naa xam forsa ak mbokk yi nga xam ne ñoo lay seetaan si Médina TV HD euh, ñaata nga njëkk gaña si làmba. comme trophée wala comme prix ñaata nga njëkk a gagné ci làmb. non mooy suñu combat boobu rek combat nommé woon boobu la rek ñu fayoo ñu 15000 ans ah, loolu la woon mais xam nga boobu concentré wuñ si woon dañ jàppoon nii rek affaire du guerrier pour suñuy butéel loo xamul rek pour suñuy butéel xam nga jël ay kayitu weex yooyu dugal si xaw a taxal suñu bopp yooyu xaw a sotteeku sotteelu gàllaaj mooy loolu. Eh, combat ñu ñëw nag est-ce que ba léegi ñu ñëw si lutte simple bi est-ce que am nga occasion dem yenn dëkk yi bëri euh, comme wala yenn milieu comme Adrien Senghor wala bëri ay tournoi euh, chef de l'état CEDEAO yooyu ndax mën nga am nga occasion bëri ko. non wax dëgg yàlla amuñu occasion bëreeguñu ay Adrien Senghor wala ay drapeau chef de l'état parce que nit ku nekk da ngay am kilifa da ngay am ñu la jiital ñi ñi dañu joxagul daal digal boobu noonu. Euh, ba ngay dugg si làmb ñu ñëw tuuti en arène est-ce que say parents d'accord nañu pour nga yow nga nga bëre ak ñoom lan moo nekkoon seen seen seen avis. non au départ moom d'accord ñu woon d'accord woon mais bon xam nga yaay ak doom rek xamata làmb dafa xaw a métti ñuy naxanteeg ñoom di naxanteeg ñoom ba finalement après mais au départ moom métti woon na trop nag lu ñu si daan def dañ daan làq lu ñu si daan def nag lépp lu ñu daan def si affaire làmb bu ñu dem entraînement ak lépp dañuy làq bon xam nga boo juddoo si fay boo xamante ne bon. xamuñu loolu musuñu koo def day xaw a métti quoi mais alhamdulilah nag ñu ngi suy jàppale léegi bu baax a baax. kenn mosul see dóor ne la bàyyi làmb jee ak yooyu noonu. non non non wax dëgg yàlla nag dóor moom amu si quoi mais ñu ngi si doon wax nag xam nga des fois nga dégg wax yoo xamante ne moo gën a métti dóor da ngay préférer sax ñu dóor la que ngay ñu lay wax yenn wax yi mm, mais mosuñu see dóor moom wax dëgg yàlla. Euh, ban année la forsa de njëkk takk ngemb ne mu ngi bëre euh, lutte avec frappe ak euh, ban ban ban ak kan la woon ban promoteur moo ko tegoon aussi ak ban mbër. sam premier combat arène maa ngi ko bëree 2014 su combat Alou Badou Siré Sera stade Iba Mar ma woon benn promoteur sam benn waay bu baax moo ko tëggoon Soleil Kali production moo ko tëggoon Souleymane. combat boobu waaw alhamdulilah nag yàlla dimbali woon ba ñoo si amoon dam mhm. non xam nga waa ji dafa doon sama waay li ma fay si sama premier combat fay ñu ma ko sama deuxième combat fay ñu ma ko sama troisième komba te en dama defoon mu sës si combat spécial bi xam nga rek ni tax xaritam euh, yàlla dimbali mu defoon ñu si tam trophée trophée jamono jooju defe naa Thierno Modibo Diop. defe naa moo doon meeru Colobane moom lañ defoon trophée moom lañ joxoon trophée bi ñu amoon si ndam. Euh, mun nañ xam ñaata combat fi mu toll euh, moom nga am ci arène bi ak ñaata victoire ak ñaata défaite. waaw arène bi am nañ si sept combats am si six victoire benn defet euh, MC Gaz. daan naa Tombe Sène Talibe Kara Balla Gaye Junior Mame Gorgui Junior. bu Buxaaba waaw def naa ñooñ ah. mun nga ñëwaat tuuti ci par rapport ak euh, métier bi ngay def muy muy muy bëre est-ce que yomb na nga boole bëre bi ak menuiserie bi. non metti na nag waaw lu métti la nag wax dëgg yàlla parce que entraînement rek métti na xeetu métti goo xamante ne mooy loolu mais boo ko bëggee booleeg métier gi mais alhamdulilah ban amee ay parents yu compréhensif tamit am ay nit ñu baax ñoo xamante ne dañ ñuy jàppale. si suñu métier ku si mel ay Mbaye Ndiaye ay Grand Issa ñooñu waaw ay Youssouf ay Alaaji Kan ñooñu même ñun bu ñu nekkulee atelier di liggéey sax ñoom ñi ngi fa di liggéey liggéey mais métti na trop nag moo tax sax jamono ji dañ xaw a reculer tuuti sax bon si affaire làmbam dañ xaw a reculer tuuti am yu bëree bëri yu ñuy jàngataat bon ñu ngi xool daal ñu ngi waxtaan ak suñuy kilifa nag ñu ngi suñu ruq daal moo tax mooy li ma la wax commencement bi ne la dama rëcc sax wax mais waraguma woon wax parce que dafa am si lu nekk. di ko waxtaan entre famille entre copain entre kilifa ak ay doomam ñu ngi si di waxtaan daal te xam naa bientôt dinañ si waxaat te si waxaat amaana sax si Médina TV lañ koy waxee. mais mun ngay ñamal bu dee bu ko defee waa Médina TV am exclusivité bi bon ñu xam lan la quoi man may ko suñu internet. non loolu dinañ ko waxtaanee waat. Mm, te que xam nga wax moom dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dan ma waxal te heure ba jotagul nañ ñu may tuuti rek waaw am na daal lu ñu war a wax. Mm-hmm. est ce que Forza 2 dafa bëgg a bàyyi làmb kon arrêté concentré wu si menuisier bi. <laughs> non en tout ñun ñu ngi suñu ruq di waxtaan suñuy kilifa di waxtaan ak ñi ñuy jàppale ñëpp ñi ñi mën a seeti ñi ngi leen di seeti ñi mën a waxtaanal téléphone ñi ngi waxtaan ak ñoom téléphone bu ñu tënkee li ñu war a tënk yëpp daal bu ñu paree incha allah dinañ ne ah mooy loolu dinañ dinañ dinañ si wax daal. mbokk yi internet Medina TV yéen ko déggandoo ñu ngi suñu émission ba léegi parcours ñu am mbégte di si dalal euh, Forza 2 nekk écurie Fass dëkk fii si Medina euh, rue 19 angle 6 émission bi nag ñu ngi si ànd ak suñu sponsor euh, Tri naan la di defar thé yi xam nga di defar ay jus de citron xam di defar ay aussi jus de jus de gingembre. donc dëkk fii si Médina aussi di ndaw boo xam ne mu ngi yëngatu un jeune entrepreneur euh, moom mooy defar kir yi nga xam ne moom lañ teg si plateau bi nii. donc euh, ku ko bëgg a jot nag da ngay woote si 77 641 98 52 wala nga def 110 525 84 80 mu ngi nekk rue 23 angle corniche naan la mooy defar tri yi nii kon euh, Forza ñu jël benn def benn break naan si bi. nga naan ci télé bi wax ma lan lay saf ak lan ngay wax naan la mi koy defar xam naa war ngeen xamante doom mel naa la. waaw neex na trop ah. waaw noonu ñu doon koy consommer parce que naan la jaañ suñu xarit la kër gi muy dëkk ñu kër googu suñu kër papa si sisal fa lañu jàngee métier. mu di 23 angle corniche boobu noonu suñu waay la waa ju baax la fu ñu rombee jàmm ju bari leen séex fu mu rombee dañ ñuy jox cër ñu waxtaan mooy loolu di ko encouragé bu baax a baax parce que seenu daanu c'est le Médina kii gañ initiative bu rafet la doon koy encouragé rawatina nag ñu ci gën a kontaan loo mu ñëw biir Medina TV di leen sponsorisé di ñaan yeneen yeneen sponsor ñëwaat man sax am na sponsor ma leen bëgg a booleel muy Amed Lo Amed Lo waaw muy suma gars yi mooy yoom Amadou Dem waaw ñuy raxas oto yeeg yooyu noonu mooy fi ñu defee émission bi nii sax ñooñu moom foog ñu ñëw jàpp si Medina TV bu baax a baax waa Medina TV itam jàppale leen parce que ñu ni neen la c'est le Medina kiy gañ euh, ñu ñëw tuuti si actualité parce que aussi ku wax làmb wax wàllu actualité te jamono bi ñu nekk ni dafa ne nekk jamono Covid maanaam wàllu coronavirus tey nan ngay dundee euh, ak jamono bi nga xam ne fa lañ toll moment bi fekk làmba yi pratiquement doon na am promoteur yi démarché combat ak yooyu ngay waajal noo ko gisee làmba yi jamono bi ñu toll nii ak euh, Covid bi. waaw métti na trop mais métti na méttiwul parce que boo amee sa métier di ko pratiquer daanaka duyeeg métti bi. parce que olof Ndiaye dafa ne su ma la ñaanee jàngal ma nu ñuy nappee moom ko gën a ñun alhamdulilah suñu papa jàngal nañu bu baax a baax nu ñuy nappee bon métti na méttiwul mais ñun wax dëgg yàlla métti bi moom santuruñ ko loolu daal parce que ñu ngi suñu ruq ñu ngi liggéey suñu liggéey. Mm-hmm. kon daal euh, mën nañu wax ne daal li olof di rek man sa métier daal moo wóor. ah waaw teraanga doomu aadama liggéey koy joxe de parce que moo di tubaab naan quand on n'a pas ce que de ce que l'on a. déggal proverbe <laughs> waaw mais mooy li tubaab naan quand on n'a pas ce que on se contente de ce naa l'on parce que liggéey dafa neex man de am naa fitu yëkkati sama loxo wax ko si kaw ne mosuma dem toog kër ministre mosuma dem toog kër député du maire du kenn ku Forza 2 mos a ñëw du toog sa kër pour di la ñaanaat wala yooyu noonu parce que loolu tax mi ci neex ñi ngi si ku ñu si fekk ñi ngi si ku ñu fekkul tamit ñi ngi si. Hmm. kon daal Covid bi mën nañu wax na des na la impacté bu baax. waaw bon si suñu côté métier xaw na kii o départ métti woon na mais instant bi alhamdulilah ça passe mhm. ah. ñu ñëw ci aussi si écurie Fass parce que gis nañu ne écurie bu bëri écurie euh, écurie bu bëri problème la parce que wax nga ko sànq bi ngay commencé tudd nga ku ci mel ni Balla Diouf nekkoon sa grand nekk si ñi nga xam ne ñoo la pratiquement poussé ba nga def bëri ñu gis ne Balla juuf am na problème ak waa Fass jóge na fa ku si mel ni ñoom Ousa ñoom Papa saw dernièrement moo mujjee génne foofu parce que ñu nekk ñoo xam na tey ku leen xam rek da nga leen xam ak écurie Fass écurie bi lan mooy problème bi ba sortie yooyu yëpp di fa am départ yëpp di fa am euh, ndax problème bu ci dirigeant yi la wala mbëri ci boppam ñoo lu respecté règlement intérieur bi. xam nga des fois gars yi dafa am lu ñuy jaawale. ñuy jaawale problème ak bayre. problème mhm. ak problème ak bayre écurie Fass ñoo am bayre mooy xorom si cin écurie Fass mara day taal mara day bu defee dix combats si bi dix defet moom la ñuy waxtaanee bu defee dix combats dix victoire tam moom la ñuy waxtaanee bayre la mooy li may wax chaque jour euh, suñu maam yi li ñu fi defoon moo fi des ba léegi mais di wax nag suñu génération nañu góorgóorlu bu baax a baax. parce que na waruñu nangu puso bi di mujjee suñu loxo di réer nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax parce que ñi fi nekkoon démb dafa am lu bari luñ fi def. Mhm. mais Igri Fass non ah problème non man sincèrement gisuma problème en tout cas xam naa ne Balla Diouf suma grand la suma papa la Papa Sow suma grand la suma xarit Ikiri Fass tamit amuñu lenn lu dul Ikiri Fass ñoom ñëpp seenu daanu Balla Diouf couleur booy Médina la Ikiri Fass ay défendre Papa lu raar ma wax la ko tey Papa Sow est-ce que du moom mooy seul lutteur actuellement bu nekk Ikiri Fass bu juddoo biir Fass ñi waaw Papa biir Fass su juddoo kon Papa kenn gënu koo doon doomu Fass kenn gënu koo doon doomu doomu Médina parce que Médina bii la jàngee métier menuisier la doon liggéey mais c'est nous dans nous lépp nañ ko waxtaanee en tout cas xam naa benn affaire moom àdduna du neex mukk ba mbëru Fass di bëreeg waa écurie Papa Sow àdduna du neex mukk ba waa écurie Papa Sow di bëreeg waa écurie Fass kon ñu ni neen la rek nañ ko waxtaanee. Ah, léegi bi nga yëgee départ Papa Sow si biir écurie Fass yow noo ko dundee est que woo nga ko personnellement waxtaan ak moom wala yéen mbër yi ban lan moo nekkoon seen taxawaay. non xam nga am na dossier yoo xamante ne doo ko maîtriser bu baax doo xam lu nekk au fond. mais papa moom man moom man entre man ak moom jàmm lu ñu séq dañuy waxtaan whatsapp dañuy déggoo téléphone souvent ma dem seeti ji ko mais bon xam nga loo maîtriser wul moom day baax ngay wax booy wax nga wax lu wóor mais man dossier papa Sow bi ak Igri Fass bi maîtriser wu ma ko bu baax moo tax du ma si mënu ma see sori bu baax daal. Euh, ñu ñëw aussi sa relation ak euh, mbër yi nga xam ne ñoo nekk biir Écurie Fass ak wala yi nga xam ne ñoo nekk biir Medina xam nga tey euh, tey ku ci mel ni Diène Kairé mën naa wax ne yéen a bokk dëkk Dames lan mooy seen relation yéen ñaar ak yeneen mbër yi nga xam ne ñoo nekk écurie Fass. Diène Kaïré bokkuñu dëkk Medina kese de Diène Kaïré papam ak sam papa suñu maam mais Diène Kaïré euh, ñoo bokkoon classe. Diène Kaïré waaw ñoo bokkoon classe suñu waay la ku baax la moom bébé Diène double moteur jàmm rek lañ seq ah. ku ci xewle lu ñuy ñëw muy bànneex di naqar. Mhm. mosoo leen laale si bëre comme temps temps xale yooyu. non non yàlla tere loolu xaju fi sax jën kër ñoo bokk benn koñ Riven 3 la dëkk Riven 3 laa dëkk benn koñ koñ joxul suñu diggante loolu moom xaju fa wax dëgg yàlla. tey moom boo amee combat lan mooy nekk taxawaayu Forza 2 wala yow aussi boo amee combat lan mooy nekk taxawaayu moom. te rek en tant que des jeunes de Médina rek ñun amuñu ñun man boog man moom man man aw ma ci ma àdduna lu Médina Médina laa gëm muy làmb ak hors de làmb lépp lu Médina nekk. wallaahi interview may def ak yéen ñu bari topp nañ ma si jamono ji paas mais xam nga ay buri xam nga ay daan da gars yi doo xam loo leen di def te la lay forcer na la danga koy def par force ndax ñoom boo amee combat ñoom ñooy ñëw ñoo lay filmer ñoom ñoo lay photo kon tey lu lépp te doo leen jox ñëw journée nekk ak yow booy def open press ñu ñëw fa taxaw doo leen fay kon tey jii nii bu ñu defee lii ñu bu ñu nee dañuy def li ñuy def par force munuñu si dara. est-ce que am na promoteur bu doon démarché sa combat avant Covid bi di ñëw. avant Covid bi waaw jamono jee sax ñi ngi doon ñi ngi démarché sama combat nii sax mais mooy comme li ma wax rek dañ nekk am lu ñuy jàngataat suñu biir si déglu rek ñi ngi déglu daal ñi ñu war a déglu bu ñu paree en tout cas daal dinañ wax. Euh, léegi ñu ñëw si wàllu président CNG euh, euh, ñu xam ñu gis ne octobre le 31 bi di ñëw. si la mandat docteur Alioune di jeex ñu bëri ŋàññi ko aussi ci biir CNG ñii par rapport nee nañ yàgg na fi xam nga yow lan ngay wax si loolu. waa xam nga Sénégal des fois luy dañuy préférer xam nga changement dafa baax jamono day dox président Alioune Sarr ku ne liggéeyul dara dan lay reetaan liggéey na bu baax a baax liggéey na CNG liggéey na làmb ji bu baax a baax mais des fois da koy laaj changement comme ni ñuy changer président di changé lépp. Euh, ñu dégg ci ñi nga xam ne ñoo nekk les possibles prétendants à la tête du ñu cité si des euh, lutteurs ku ci mel ni Mouhamed Ndao Tyson est-ce que yow gis nga ni làmba ji un ancien lutteur war na ko mën a doxal comme Tyson. bon Tyson pour wax si moom day xaw a jafe ndax lan daanaka boobu ba léegi nit ñu ñooy wax rek mais ba léegi kenn déggul Tyson mu ne moom daa bëgg a kenn dégg ko tamit mu ne bëggul CNG moom moo war a génn giññi nit ñi ne daa bëgg candidat wala du candidat mais bon boo xoolee man bokk si sport yi may suivre si monde bi yëpp boo xoolee ñu koy ñi doon ñu koy doon jiit day doon les pratiquants mbër war na mën a jiite mbër war na mën a doon sax président Sénégal pourquoi pas parce que auditeurs yi am na ñu jàng. am na ñoo xam te ne kenn xamul yàlla rek xam ni xew soo mais pourquoi pas ñu séntu un jour <laughs> un lutteur devenir un président du Sénégal un ministre oui des sports mhm. waaw sutura suñu borom dafa yaatu lu ne xaj na si waaw ah, loolu moom euh, kon yéen a ko loolu la euh, mooy li nga xam ne moom la xalaat ci présidence CNG ba léegi ñu ngi toog ak forsa 2 seen émission parcours mbokk yi Medina TV HD yéen ñi nga xam ne yéen a ñu seetaan si YouTube beeg. Euh, Instagram ak Facebook ñu am mbégte aussi di ko ci dalal ñu ñëw aussi tuuti ci euh, biir association des lutteurs en activité yi euh, Gris Bordeaux nekk ki ko ki ko jiite est-ce que yow yaa ngi ci biir association boobu. non pour dire vrai wax dëgg yàlla bokkuma hmm. moo la tere bokk dañ la loo bokk doo xaar ñu la siy parce que dañ association des lutteurs di Sénégal. bon ñu ni nellu ñun ñëpp mais wax dëgg yàlla bokkuñ si moom. mais yaa ngi xalaat un jour nga nga bokk ci parce que association bu kaa ko puisse dire euh, am na njëriñ aussi parce que gis nañu des anciens lutteurs yoo xam ne ni tey bu ñu demee ba retraité bàyyi làmba problème yi ñuy dund pratiquement da ngay chaque jour boo xëyee gis leen ci presse bi ñu leen defal ay téléthon wala ay sàkkul ndimbal donc association pour man euh, c'est une occasion pour yéen ñi nga xam ne yéen nekk ngeen mën ci boole. mais bu fekkee ay participation ngeen fay def femme ay cotisation ngeen def comme ça bu ngeen amee yenn problème yi ngeen mën di soutenirante. waaw mais mooy comme ni may wax rek fagaroo gën faju ni da ngay am métier ko wax sama mbokku mbër yëpp parce que yàlla rek xam nag doole moom doole yemul yàllaay bind ñii da leen di bind ñu am lool ñii da leen di bindali am ñoo am te ne yàlla ma yàlla jégal dinañ dinañ dund ba génn àdduna du ñu am kër mais am ñoo xam te ne dund di am kër du ñu du ñu yëg naqar du ñu yëg coono. mais dans tout ça mooy li ma wax rek da ngay am métier jàpp sa métier liggéey parce que jii nii bu ëllëg si biiree bu la dara jotee wala bu dara jotee sa waa nga mën ko fajal sa bopp. Euh, est-ce que bu dee ba doon tey di nga dugg di nga dugg ci làmb non non non sincèrement làmb nag mooy li ma wax du ma ko xalab du ma xas làmb du ma wax dara làmb lu ñaaw mais dafa bari coono. bari métti bari xaaxaam yoon bi dafa diis trop mais bu tey doon téem man Forza 2 noo wax dëgg yàlla du ma tugg si laam mais destin la nag ku nekk ak fi ngay jaar yàlla moo lay jaarale si yoon mais rëccu wu ma ko nag tax ma dugg si parce que tey may na ma ay connaissance yu bëree bari lu bëri lu jafe samay morom euh, yomb na ma lu bëri loo xamante ne en tout làmb li ma tijjil bëri na may na ma buntu yu bëree bari mais bu tey doon déem moom noo wax dëgg yàlla naa toog xool leneen daal Euh, mun nañu xam tey Forza 2 bu amee combat waa këram nan lañ koy waajalee yaayam papam ak euh, euh, frère yi nga xam ñoom la nekk waa koñ bi nan lañ koy waajale waaw non koñ bi moom ñun suñu famille yàlla daf ñu dimbali ñoom am papa bu gën si papa yi mu éduqué ñu ñu am tamit ay xarit yu jàmbaar ñoom Amadou Deme mais lépp suñu badu Forza 2 du Forza 2 Forza 2 badu la badu badu pour cent Grand Dakar kooku lépp moom la. jooyu ma dara sama àdduna ndax ku si mel ni Badou sama gaay maa ne yoom Birane Petit Ndiaga xam nga Souley yoom Amadou Dem Daouda Menga xam nga Pafal ñëpp daal ñoom tey jii nii Mbaye Ndiaye surtout ku si mel ni mbay Ndiaye mais tey ñu jooyu ñu dara ndax ñooñu mhm, ñoo ñuy encouragé ñoo ñuy jàppale si yu bëree bëree bëree bëri ah ñu ngi jeexal suñu euh, émission ak yow ñu bàyyi la rek yaakaar naa waxtaan nañu lëb ne ah non doon koy yaatalaat parce que lii suñu yëf la man dama part personnel dinaa dox yëkkati samay dàll takk sama dàll bu mu dëgër dem si mbaru Médina yi comme yëfu Médina la euh, ñu toog def benn plateau boo xam te ne spécial 100 pour cent Médina lañ koy def naa contacter yom Biène Kayre double moteur ay bébé Diène ñi xam te daal ay 100 pour cent Médina bi naa leen contacter ñu toog def benn émission bu neex boo xam te ne 100 pour cent Médina lay doon loolu ma maa leen ko promettre. na nga ko wax sànq sama xel daf ci génnoon muy kaaw Bébé Diène ñu koy dégg aussi mu nekk un jeune boo xam ne am na avenir si làmb ñu koy dégg ci ay kaa yoo xam ne ni mën nañu wax ne rafetul daal ba jamono yi la arrêté woon nañ ko fi ba ñu ngi dégg ne aussi dañ ko arrêté waat ci affaire yi nga xam ne ni daal xam nga rafetul ci koo xam ne doomu Medina la maanaam mbër la lan ngay digal sa moromu mbër yi ak euh, ñi nga xam ne ñooy def yooyu. non information bu dee doon ko arrêté démb wala ay bërki démb moom loolu moom dégguma ko maa ngi koy doo ko dégg nii Bébé Diène la mais su ma koy conseil dama ko naan àdduna nit booy xool xoolal xarit bi mooy li naan xarit bi gën si xarit mooy xarit bi la bëgg ba pare am xel noonu bi gën a garaaw si noon mooy noonu bi la bañ ba pare am xel xarit dafa am solo man yàlla def na ni ñi may àndal te ma jàppee leen ay xarit ñu sama doomu ndey ñëpp amul kenn ku suy tux cigarette te du ma ànd ak ñoom noonu laa noonu leen mañ noonu la ma sama papa yare te slogan boobu laay demee. koo ma tey jii nii ma Macky Sall la woowoon tey ne ma daf may daf may recevoir mën naa ànd ak dix am te ne samay gaayen quinzaine te koo si xool da xool ñëpp xam ne dañ naturel adduna boo dee ndaw nekk si yoon yoon bi dafa diis dangay ngay moytu yu bari foo boo tolloo si buntu àdduna yu bari da nga koy daw. man bañ ñoo ba man ah man moom dama part personnel du may dem rajo du may dem télé du may su may dem daal bariwul sama ruqulaay toog su ma nekkul sama gàlle maa ngi atelier su ma nekkul atelier maa ngi Grand Dakar si Badu wala maa ngi fii sama gars yi si Amadou dem ñu teg ataaye ñuy raxas suñuy oto yooyu noonu moom loolu laay dund moom. Euh, ban lan ngay tëjee tey ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan si Medina TV HD. waa di leen santaat di leen santaat bu baax a baax a baax fi ma tàmbalee rek fa laay jeexalee mooy. émission mu mës def sama àdduna bii moom si gënal ndax lan Médina TV je suis fier d'être un enfant de la Médina u suis fier d'être un produit de la Médina et je vous encourage tout la Médina est derrière mais di sant nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp ku mës a sonn ngir Forza 2 su ma limee dinaa jum mais sa ñaane amul dem daaw da méng badu sama papa sama mag sama xarit sama jumeau sama lépp mbay Ndiaye grand Issa mais di sant tamit sama ñetti papa yi samay kilifa comme ni ma koy waxee Amé Diop Mbayro Laar mu Diop di sant waa Canal 4 di sant waa Médina di sant waa écurie Fass bu baax a baax a baax baax di sant mbër yi fa nekk yëpp su ma limee dinaa juum mais ay pap bu xees wuugaa ñëpp daal si toor képp koo xamante ne rek yaa ngi écurie Fass di ñaan écurie Fass déwén yàlla na jël numéro un si saison bi di wax ñëpp mbër yi fa nekk daal nañu góorgóorlu ñun moom instant moom ñu ngi suñu ruq toog mais di wax sama gaay nañu góorlu bu baax a baax jàpp mais di sant tamit waa kër gi ñuy defee émission bi parce que tamit dafa neex trop émission bi sama kër laa noonu dama ko def mais Amad Dem dafa ma ne non non loolu da nga koy defee sa kër te chaque jour ñuy toog fii mooy ñun fii la ñuy toog fii mooy penc mi fii mooy c'est Ameloo c'est Amad Dem neex ba dee nag lépp ngi fi nos femmes nos films naturel rek waaw mais di la sant yow it di kontaan si yow trop di la wax ne nii la rek liggéeyal gëm ko. fi ñuy dégg journaliste yi gën a mag waxuma la Sénégal si àdduna yàlla na la yàlla jàppale ñu dégg la fa bu baax a baax Médina TV man de li may ñaan yàlla na dem baraw canal horizon di leen encouragé yëpp seen équipe yooyu ñëpp nag de A à Z su ma limee rek dinaa juum parce que ku si nekk si Médina TV bu dee benn bës mës nga ma ko sonnal man nag lépp lu Médina TV nekk man Forza 2 dama part personnel maa ngi si. Hmm. amoon nañu mbégte mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan si Médina TV HD. di dalal un grand champion de lutte di forsa 2 nekk doomu Medina juddoo Medina yaroo fi màgge fi euh, du ñu jeexal émission bi nag te du ñu gërëmaat suñu sponsor bi nga xam ne moo ñuy jàppale di naan la di defar tiri bi nga xam ne nii bëri na ay parfum am na am na gingembre am na citron bon am na thé aussi dëkk rue 23 angle corniche kon yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci Medina ku ci am cérémonie rek mu nekk mariage réception baptême xam ak lu mu mënti nekk rek euh, mën nga ñëw seet seen naan la mi nga xam ne mooy defar tri bi boo ko woowee rek incha allah dina ñëw defal la lu neex lu baax ñu ngi leen di remercier mbokk ñu doon seetaan di leen tàggu di aussi dig daje ba beneen numéro parcours. mooy kii mooy président des deux roues président des supporters de deux de Forza 2 ñu ne laaj yoo xam si Forza 2. ah Forza 2 moom borom baax la waaw. yàgg nañ ci koñ bi mosuñu ko dégg ci lu ñaaw te dafa yëg am yitte ci nit fu mu la romb nuyu la te lu mu lu nit xewle dama ko ci gis ma loo tax ma naw ko du xaalis du dara mais xolam moo rafet man moo tax ma jàpp ko man mbaru Médina moom ñëpp samay xarit lañ ku ci xewle moom boo ma ko waxee dinaa ñëw te dinaa woo gaayab dinañ ñëw def combat bu rëy dafa lu neex loo xamante ne moom ndam rek waaw ah merci waay jaayoo mbër kii mooy borom kilimi du jaw du caw gars yi waa Médina TV. Ah. seen rajo seen télé. moo ah. mu ñëwoon di laajte lu ngeen xam si Forza 2. ah Forza 2. Forza 2 moom li nga koy wax rek yaa kay ñoom dañ lay ñaanal rek yàlla nañ koy toog ba doon roi des arènes. incha allah. waaw ah, kii c'est mon jumeau c'est mon frère. mais lan lay laaj loo xam si Forza 2. non Forza 2 moom li ma xam si moom su ma ko waxee fii nii xam naa fii lañuy ñuy yendu parce que nit ku baax la nit ku mën a sonn si soxlay nit la. dañ naan mbër du bokk man moom gëwma loolu par rapport ak moom quoi parce que maa ngi koy gis yu baax yu muy def si dëkk bi xam nga ñu koy ñaanal rek yàlla sàmm ko gën ko yokk xam nga may ko soxna su baax nag mais mbër war nga takk soxna nag. boobu la gars yi wax. Ah, waaw mais mbër kañ nag. kañ non lekk rek moo tax ma bëgg a takk jabar. ndax booyoo dafa yaa ma gën a non mais dara yàlla na ko yàlla mottali yàlla defal la jàmm Medina TV dem ci kaw ca kanam ci lu baax. ngeen di waa Medina TV. Uh-huh. ñoo laajte loo xam si Forza 2 ndax booy bu yaru diku la booy bu terrorisé waa koñ bi wala lan la. waaw waaw loolu moom am na. moom moom nit bu baax la quoi mais sonal na gars yi de gisoo ko mi ngi nii amul benn problème billaahi gars yi dañ koy tooñ sax naan ndóof mbalak rek lay def billaahi wallaahi nit nit yi la suñu nit la ñun moom lu mu tax dugg ñu dugg si barki alxuraanu karim buñ nee woon tey ji nii suba Forza 2 moo am combat duñ si bañ dara billaahi suñu nit la moom mais yaa tax ma bëgg a takk jabar de waaw jabar baax na si nag sonal nga ma trop mais instant yi kii woon ngembali rek géral ngembali mu nekk sa jabar ba si kanam oh. yow champion nga instant yi nii tolloogoo si am jabar xale bu ndaw nga oh. buñ kiiwagum xalaatagum yooyu sax gars yi la bu ko déglu mais ama dem nee na maa ngi moom ñu jël yooyu yow ñii bàyyi leen yooyu yow ngembali na nekk sa jabar rek ba si kanam jooju ji. waaw ah, waaw teg ko suñu baaraam. waaw Galas. waaw mais yaa ngi reetaan. waaw waaye reekay. waaw waa maintenant TV ñoo ngi doon ñëw di laajte loo xam si Forza 2 ndax booy bi yaru la booy bi terrorisé waa koñ bi la wala lan la. non terrorisé wul waa koñ bi booy bi yaru la bàyyee.